nee na ñoom seen stratégie la ñenn ñi des ci ginnaaw ñu bàyyi nit ki président Ousmane Sonko nekk ci kanam ñu ne ñoom ñoo ko waxante man maam may toog devant tous les Sénégalais ma ne bu fekkee ne yéen seen stratégie mooy président Ousmane Sonko sacrifié boppam yéen ngeen toog ca ginnaaw stratégie tuune la maa ko wax et parce que 2012 ñoom Macky bañ ci tolloo woon. ñoom seen favori dañ ko protéger woon teg ko ci ginnaaw amul benn photo booy gis ñu ne la Macky Sall moo yore xeer Moustapha Niass moo yore woon xeer Mame Mbaye Niang moo demoon takk boppam ci gri ba waaye Y'en a ñoo nekkoon ci mbedd bi mooy leader yi fi ma sa nekk yëpp ña bëggoon ñu falu ak ña toppoon seen ginnaaw ñoom ñoo jiite xare bi léegi yow Diomaye dangaa cuune te mënoo politique

nit ba mu foog ne ne moom mooy maam yàlla da ngeen wax joomaay dans tous les partis politiques du Sénégal yi nga xam ne dañu bëgg a aspirer être président de la République ñi ñuy teg ci kanam mooy ñu am nit. Macky Sall boo leen ko gisee muy ànd ak Farba Ngom te Farba Ngom jàngul c'est parce que Farba Ngom mun na indi ay nit ci parti bi noonu la ñuy politiquer Barthélémy

il allait gagner Ndengeleer Ndengeleer gën a tuuti Sénégal sama village bu ndaw ba li Douala la sax moo ëpp ndeng moo mag Ndengeleer nañuy waxante dëgg boo leen bëggee ànd ànd boo bëggee mu neex dañuy xool ki nekk ci kanam kan mooy jiite am na ñoo xamante ne ils sont pas faits pour être devant benn fi ñu nii xale yaa ngi ca prison ya prison ya fees nañu dell soxlawuñu góor goo xamante ne voix bi dafa nooy nooy nooy ba nga xamante ne man mii jigéen sax maa ko gën a dëgër lay voix fi ñu toll nii góor dëgg lañu soxla kuy taxaw ci kanam waa mag Sall li ñu doon gësam soxlawuñu voix jomaay joomaay bi parce que voix voix wu bi tiit loowul Macky Sall bu doon joomaay rek Macky du tiit ñene ma benn jomaay joomaay mënul gañe ndengeleer xam Macky Sall ñan ñoo ko mën a tiital ci biir Pastef mooy ñoo xam te dañoo am ay nit bu ñu jógee ñëpp topp ci ginnaaw ñoo ñoo mën a tiital

ngeen wàccee sen bop ba méngoog souf c'est pas parce que da ngeen di liggéey impôt et domaine ni président Ousmane Sonko wàcceewee bopom ba méngoog souf da ngeen wara a sen seen ba méngoog souf te waxaa askan bi doomu jàmbur yaa ngi souffrir ci prison bi prison yi fess nañu del del del del del del del del actuellement c'est pas le moment de se dire oui on se fait des stratégies pour que nous on ne nous choque pas problème bi moy soit Macky Sall jël ñun ñep nañu rap dañu ci kasso bi il sera obligé de nous nourrir soit il libère tout le monde góor guy waxé non lañu soxla tay les stratégies à la con de jomay ce ko feulé stratégie au bu de marché gañu woon na stratégie au bu marché du doon une liste nationale nekkoon na député stratégie ça ne marche pas et il y a plein de gens qui sont dans ce parti et leur stratégie ne marche pas bu leen xool li nit yi di teg parti yeneen parti yi ñan la ñuy teg ci kanam mooy ñi ngante ni bu ñu jógee mbooloo da leen di topp looloo fi yëkkati Melaye Wade looloo fi yëkkati Abdou Diouf képp ko bëgg a nekk président de la république Sénégal bu bëggee falu day teg ci wetam ñi nga xam ne bu ñu jógee dañuy yëkkati mbooloo mais bu ñu génnee ci benn picc du leen topp

des milliers ou des milliers de président Ousmane Sonko mooy góor yoo xam te bu ñu jógee rek ñëpp topp seen ginnaaw góor yoo xam te ne bu ñu jógee rek ñëpp topp seen ginnaaw ak jigéen yoo xam te ne bu ñu jógee rek ay euh, nit topp seen ginnaaw amanaa chef de quartier la amanaa imam bi nekk ci koñ bi la amanaa maire mbootaay bi nekk ci koñ bi la amanaa chef de quartier bi nekk ci koñ bi la ñun ñooñu lañu soxla ñoo xam te ne bu ñu jógee mbooloo bi topp ci comme ça bu manifestation amee ñooñu ñoo yëkkati mbooloo bi mbedd ba fees après fonctionnaire du génne kenn dégg ngeen sénégalais africain négro moo nekk koo xam te ne bu xasee ba biir bi fees am na ñaari jabar dund ba neex na du joxe ba kenn bi yu nekk fii yëpp damay xool ña nekk impôt yi domaine ndax am bëri na ñu nekk ca mbedd ba di xeex déedéet am nañu kër gu rafet am nañu oto bu rafet jarul leen joxe seen bakkan bii parce que dañ naan bu ñu deewee dañuy ñàkk lu ñu am ci àjjana bi te xamuñu la ñuy fekki nee naa ne lay wàdd ba muy falu zo maa lay nuyu bu baax a baax ñi amuloon dara dañu doon ne sax lay wàdd band yi nekk ci koñ bee ko fal loolu gis ngeen ñi topp ci moom yëpp am tey amuñu woon gàtt gàtt gàtt gàtt parce que amul dara amul lu mu lekk koo mais ku xamante ne dara manqué wu ko chaque jour bu ayee ci jabar bi bu subaa mu ayee ci jabar bële bu subaa mu ayee ci jabar bële kooku dara manqué wu ko rien du tout ni l'amour ni l'argent ni la maison il a rien il se bat pour quoi pour rien ils vont pas se battre. xool leen ndongo Regardez les enfants yi ni ñuy Regardez Abdou Karim Gueye les gens ñi est-ce que Nous waroon nooy Nous ñun président Ousmane Sonko dañu wax leen parce que les nekk ci kaso bi c'est des gens qui respirent tant que vous avez ngi tàccu ñu mel ni joomaay amuñu fi bëgg naa boo leen demati ci plateau yi ngeen xool nit ku am mbooloo nit ku gañe yéen ñi nekk maire yéen ñi nekk député yéen ñi nga xamante ne yéen am na ñu leen fal gañe ngeen seen koñ yéen a war a dem ca plateau yi yéen a war a génn ca mbedd ba parce que ña leen fal boo leen génne ca ñooñu nañ topp seen ginnaaw. 2024 sori na. nous nous n'allons pas laisser les gens les enfants là dans les prisons Amna na ñoo xamante depuis Adji Sar mois de mars 2021 lañu nekk ci prison jusqu'à présent boo nekkee ci biti di añ ba di nga bo leen toppee ñu moy ñi xalé yaa souffrir ñu nekk ñu sen place moo on peut pas savoir ce que c'est que la prison prison yi fait ça fait ça fait ça fait ça fait ça fait ça fait del ba xale yi amuñu fuñu tok. toog joomaay waroon toog ci kaw plateau yi wax waxu góor deug man je me demande même naka la joomaay def ba am ñaar jabar je me le demande parce que baatam nooy na nooy boo xamante ne benn sax normalement waru ko won am bayam ñaar ba ngeen naan ngeen kay tàccu on naan waa de toute façon il a bien parlé il a parlé comme un grand tourné il a parlé comme un tapette te saa yu joomaay dañ ñoo yeb fu ñu nga dàkkaande sa garam bu mu reuy garam bu ba nga sol plateau ba rek xamna taxna tax ba Macky Sall tiitu grand groupe bi rek tax na Macky sal ne man de na don président du Sénégal pendant 30 ans tax sa xel ba nga sol ba grand bu bobu ñu daakaar né da ngay dem guerre pareil boobu. moo tax boo continuer wax ma ne tu n'es pas compétent tu es compétent un peu domaine tu es honnête un peu domaine mais tey dañuy xeex pour président Ousmane Sonko nekk président de la République en 2024

C'est une stratégie, on ne va pas croiser les droits et que les enfants vont mourir dans les prisons. Parce que c'est une stratégie, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Mars, tout est délogé. calmer calme avec votre stratégie am na ñoo xamante seen buntu kër lañ leen rayé, am na ñoo xamante ñu ci prison depuis mois de mars l'année dernière toujours votre stratégie seen stratégie tay jii xale yi demoon nañu ils avaient presque gagné Macky Sall ci histoire Mame Mbaye Niang bi Macky ñemewuloon avec votre stratégie à la con le lendemain ngeen dem def conférence de presse Motax tax Macky Sall am fit génn jabaram collé serré di doxantu bi Dakar.

90 des sénégalais au Sénégal ne l'entendent pas ne le comprennent pas kooku du yag yag bu mbolo jóg ne dañuy topp ak mom dem guerre guerre dafa am ñu koy diriger. séeréer yi mu dégg bu ma ko gagner du juwaa mais boo demee ba yow malgré la langue que tu comprends t'arrives pas à gagner dans ta propre région Moy bu djoma djogone day dem guerre ji Macky Sall wa Ndengaleer kenn ko top na wu fa.

nga nekk Sénégal noppi ci lii xale yi di subir biir prison yi doo nit ay mënuñu xeexal seen bopp ñu nekk ci biti ñoo leen mën a xeexal ñu génn ñu nekk ci prison yi am nañu mbokk am nañu yaay am nañu dëkkandoo am nañu nijaay am na sax ñu ñu bokkal classe école Sénégal yépp bu ñu génnoon Nous libéré xalé yi j'invite toutes les écoles sénégalaises xalé yi nek ci école yi yépp ngeen décréter grève générale ben école du jang tant que libéré wu ñu nek ci prison yi il faut que vous soyez solidaires avec vos frères qui sont dans les prisons ndax ñenn ñi seen camarade lañu ñenn ñi amanaa mënoon nañ nek futur médecin yu ñuy faj wala ñu faj suñu yaay wala ñu faj suñu mbokk ndax aduna xamoo ci kan ngay tomber limité de toutes les écoles jusqu'à ce que Macky libère tous les enfants qui sont dans les prisons. Parce qu'il y a des mineurs dans les prisons. Professeur il au Sénégal doon jàngal xale yi prison yi grève illimitée jusqu'à ce que Macky Sall libère tous les tous les détenus politiques. kanam nit bépp étudiant bépp professeur bépp sénégalais bo xam te ne tey grève illimité ba Macky Sall génnee xale yi nekk ci prison do nit. soyez solidaire avec ces gens-là mettez-vous à leur place bu len leen ci prison joxuñ ñu leen lekk joxuñ ñu leen ngeen naan joxuñ faale wuñ leen ndax xam di ngén dundoo l'importance d'une liberté lan la xalé def dara Imam Ndaw tëj nañ ko fi dóor ko torturer ko ci lo xamante ne defu ko Ousseynou tëj nañ ko fi étudiant pendant 2 ans yakul ko jangam ci lo xamante ne defu ko Ouleymaane tweet kese benn message bu ndaw ci internet bi ñu ne dafa saboter Macky Sall tëj ko prison Ami Collé Dieng unku ñu ne ko rap tëj ko ci prison te dafa nek jigéenu biir ba kañ dañuy jël ne leen ràpp tëj ci kaso bi Hannibal Jim ñaata nit la fi defal cotisation du ku feebar ku def accident ku dee ku nekk ci problème mu cotiser la liggéey la ñooñu ñëpp ñu ngi ne ràpp tëj leen ci kaso bi. ndax ay mbokkam tëju leen kaso bi Alioune Sall sàcc nañu suñu 6000 milliards ana Alioune Sall bu ngi ñam ñam am na ci takk na sax entre temps troisième femme. Mame Mbaye dañoo gën déedéet naar bu ndaw boobu dañoo gën déedéet naar bu ndaw boobu bu demee bay def kakaar suñu kaw bopp c'est parce que ñun ñoo ko may. yëpp toutes les écoles amul ben gendarmerie amul ben police amul ben police bu leen me retenir yéen étudiants yi nekk Sénégal yéen ñëpp boo leen en solidarité C'est le moment nekk ci kaso bi ñoom ñëpp la ñuy libéré ce que je comprends bien boo leen di xaar doomaay kenn du génn libéré xale yi li maam di wax yenn second du parti

ak professeurs yi nekk Sénégal parce qu'il y a même des professeurs qui sont en prison ndax Aliou Badara Mboup bii nii ñu jël ne ko ko ci bi enseignant la professeurs yi dañoo parce que enseignant yaa ngi ci prison yi grève générale illimitée ba Macky Sall génnee xale yi moo gën ngeen fi tek moo jommaay naan wax na dëgg li wax nii noonu la parti di doxee on ne se bat plus pour un parti on se bat pour une peuple pour une libération d'une peuple nekatu problème de parti may ne waa APR nekatu problème de parti ndax sen dom yaa ngi ci kasso bi nekatu problème de parti Kaliphone sa woron na bok ci xex bi parce que mom mu ngi ni ñu ji bañu né dañ ko jiñ viol dañ ko né rappé ko ci kasso bi doomu Mariama sar fiir xalé demul kasso kon grève générale ba Macky Sall libérer prisonnier yëpp tout le monde doit être solidaire parce que soo bi nag Sall réservé ñi nekk ci prison yi moom la leen réservé yéen ñi nekk ci biti li ne boo fi nekkee naa da ngeen topp ay jomaay yu tooy yooyu noonu xeen di nit c'est parce que am na jigéen am na ñaari jigéen yoo xamante ne neen dañoo nopp joomaay di ko sëyal di wujje n'ai pas dit qu'il n'est pas compétent. Il est compétent dans son domaine peut-être, impôt et domaine. Mais qui politique da On est wanewul fenn ngóoram On ko parce que c'est pas ne sait pas ko wax vous ne savez pas massifié monsieur Diomaye boo mënoon massifié ndengaleer danga koy gañee jour boo gañee ndengaleer boo ñëwee taxaw sama kanam nga wax dinaa ni bravo bàyyi leen ñi nga xam te ne dañoo perte ngeen leen teg ci kanam di leen dàccu Macky Sall xam nga ñan lay teg ci kanam ñu am ay nit Farba Ngom lu muy kon kon kon kon yëpp bu taxawee Fuuta Fuuta yëngu ndax am nay nit xam na nu ñuy yëkkatee ay nit na leen topp leen sama ginnaaw. léegi gis ngeen yéen a ngi critiqué nu mu tuddati député Macky Sall boobu noonu. Euh, jékki jékki jékki député Macky Sall bi ku jigéen ci Coura Macky yéen a ngi critiqué Coura Macky Coura Macky sax day génn quelque mais topp ci ginnaaw mhm. parce que ku ci nekk xam na nu muy moccee boppu jënam nit mooy gañe nit mooy voté ku am nit moo war a ne ca kanam looluy tiitloo Macky Sall nit mooy tiitloo Macky Sall avocat wu ma Mame Mbaye bi tubaab bi wax na leen ko nee na dóoruñu sentence su président Ousmane Sonko parce que xam nañ dafa am ay nit yu topp ci ginnaawam kon tey xoxatal nañu benn nit muy président Ousmane Sonko tiital ko ah bëgg ko yàqal carrière am parce que dafa am ay nit kon bu ñuy wut second bu topp ci ginnaaw président Ousmane Sonko dañu war a wut second bu am ay nit. Pour nous troisième dañu troisième, troisième bu am ay nit mo troisième bo xam tane ne ko bëgg bu joggé ñeppay joxé troisième, ça si on pas le faire on ne va pas battre Macky parce que pour Macky Sall on a mis tous nos œufs dans un même panier et le panier c'est présent Ousmane bu fi nit du lan parce que ñu ci ñom sen parole lañuy jaay sen diplôme lañuy jaay dafa melni dañu ñëw pour postuler pour un emploi ils viennent pas pour rassembler le peuple et changer la vie de la population sénégalaise ñom ñep dañu ñëw pour postuler comme dañu ñëw pour postuler ku ci nekk bopam lay calculer buma dugg na ci sen page yeen yéen problème mu président Ousmane Sonko ñaka ka partager partagé bëriwul xanaa loolu ci stratégie bi la bok yeen ñëpp seen bop ngeen di partagé ah. allez y regarder du mo sa si tur yi balaa ñu naan mam dafa cibler ay nit dem leen ngeen dugg seen page yi ñom ñom ñi président Ousmane Sonko fal xana loolu ci stratégie la bok pour lu partager pas seen bop ngeen di partager may ñëwaat encore pire encore dugg ci Pastef France coordinateur Pastef France me la def ci biir page Pastef France mais ni mom mo wara nek président de la République du Sénégal defu ba président Macky président Ousmane Sonko nga dem nak ci waa APR ñom dañu def sen t-shirt président Ousmane Sonko président euh, seen Macky Sall sen Dal Macky Sall sen silip Macky Sall fo gis Macky Sall da ngay dem sen bureau yi Macky Sall fépp Macky Sall mais comme les gens là ils sont derrière lui rien que pour le poste le reste ils en ont rien à foutre moo tax ñoom seen publicité bopp la ñuy doon te ñoom duñu mës a doon dara ndax amuñuy nit ndax jéemu ñuy am nit bañu ma sax ngeen def seen photo bopp mais ngeen jël seen daal sol ko jéem a am ay nit jéem a wut nit ñi jéem a dem ci nit ñi jéem a fidéliser nit yi seeni nit ngeen jéem leen a fidéliser mais jéemoo leen fidéliser seen nit di nga koñ ñu jël yëpp yëkkati jox ko Khalifa Sall parce que ñañ fa fekk fidéliser wuñu une bonne partie seeni nit la politique c'est massifier et fidéliser quand tu ne sais pas massifier et fidéliser pas, euh, tu peux pas faire de la politique li may wax nag neexu leen ndax li may wax dina déranger ñu bëri ay waroo xas sa leader waroo def li nga sa gémmañ xasaw na sa mbokk la koy wax ni di leen jaay nee leen dem len dem len dem len le jour que vous n'allez avoir personne ils vont dire on le savait man je vais pas dire je le savais je vous l'avais dit nekkul magu xamoon naa ko magu waxoon ko lay do ba ngeen di yëkkati maire di Dakar diko jox Barthélémy Dias waxoon naa ko laa defoon ba ngeen di jël lu gëna a diko jox yeneen parti yi waxoon naa ko laay doon Maintenant, les stratégies, vous les prenez, vous. Vous assumez les conséquences. Présent Ousmane Sonko vous voyez ce qui se passe un peu partout. mu ngi pas parti vous ngi ndax pas comme apprenti ils n'ont pas mis leur mains dans la pâte leurs ay parti kenn mënut remplacer président Ousmane Sonko parce que da di xaar mu massifier ngeen classé mu massifier ngeen classé mu massifier ngeen classer do len dem de massifier de fidéliser de massifier ngeen classer mom bu massifier ramasser et ça se voit actuellement. léegi dañoo bëgg yéen ngeen tànnal ñu am ay nit maam moo ko wax ngeen teg leen ci kanam parce que fa ñuy dem ñu am ay nit ñoo mën a yëkkati ay nit pour ñu dem manifester ñu ta ñu tegal ñu fi ñoo xamante ne seen voix yegg na fu sori ñoo xamante ne mën nañu jaay seen bopp am nañu personnalité parce que ces gens-là n'ont pas de personnalité benn nit moo ci am personnalité muy président Ousmane Sonko ñeneen ñi amuñu personnalité. Dès que je te vois parler, oui, nous avons fait des infiltrés. Nous avons infiltré les infiltrés. Nous avons fait des infiltrés. Nous avons infiltré. des infiltrés. Nous avons reconnaître On n'est pas des infiltrés. Parce que vous le président Ousmane Sonko, 2000, 2019. les municipales nous massifient les nous Les législatives nous massifient massifié, nous avons gagné. Dem siège, nous gagné. Quand nous infiltré mais yaw, tu es un vaurien parce que c'est pas parce que tu es un vaurien et que tu veux valoir quelque chose que tu n'es pas parce que jusqu'à présent défaut c'est preuves faire ses preuves dans un parti politique c'est faire en sorte de gagner dans ta région où tu es montrer ce que tu vaux montrer que tu sais convaincre les gens c'est ça faire la politique mais même parlant le tu n'arrives pas à les convaincre Nengalère kër yi dañ koy compter les yi dañ koy compter sensibiliser ak yomb des man gour gu may a da koy mérito gour gu top, ci da koy mérito man il France de mais xam ne ko ci il s'est massifié il s'est garder les gens ici les fidéliser mais qu'on dañ ko on parce que moi même j'ai pas le temps de d'être là tout le temps mais il y a des gens fi dañuy dem France yeen di wax euh, Sabali mu ngi France la nek. barreau de Paris c'est un militant c'est un militant de PASTEF moo gën a ay téeméer yoon xuwaan mais comme ñun on est complexé de première catégorie CV mu gën a baax téeméer yoon CV xuwaan mais comme dañu complexé on est des chercheurs de buzz Nous dem jële ji xuwaan xuwaan bi mu Sénégal pour yéen ñi il y a eu des panafricains yu bàyyi seen liggéey liggéey yépp ñoo président Ousmane Sonko non, kenn defalu leen seen publicité ndax lan nit yu ñuul la ñu parce que nous sommes complexé te pourtant nous, avons waxé avocat bi dafa parce que li avocat wara une personne responsable avec le ton qu'il faut ton nous xam bu ko vibré ñooñu ñëw nañ Sénégal ba génn pas ken waxu ndax lan nit ku ñuul du nous nit ku ñuul nit ku mu ñëw langaamu ci loolooy suñu jikko moo tax ñun suñu mbokk yu jóge woon à l'étranger yépp pour taxawal président Ousmane ko amul kenn ku la defal seen promotion dañu dem ba ca tubaab bi nga xamante ne ñépp a ngi dégg turu xuwaan xooluñu ndax baax na mbon na lu baax la mu def ak la mu bon la mu def xooluñu ko déedéet ñu ne xuwaan moo xew nañu ànd ak xuwaan tàmm leen di valoriser nit ku ñuul ku mel ni yéen ba dëkk tubaab jóge dëkk ba dëkk da ngeen war a yëkkati seen mbokk nit ku ñuul ki teg ko ba ca kaw. yow même niveau su ko defee day xaw a wàññeeku noonu la ñuy régler problème tubaab te ñun yeggaguñu stade boobu noonu parce que dafa bëri ñu complexé suñu wet wax ci Absa Diop deux minutes Absa Diop nee nga maam dafa dof yow ya dof yow Absa Diop xam nga fa dof ça fait des années ngay live mënoo sax am 5000 abonnés dans ta page parce que tu ne sais pas communiquer pour qu'on te regarde da ngay dem os OSR yow mënoo apporter dara Pastef xam nga man mën live apporter dara Pastef mais yow mënoo live apporter dara Pastef parce que même ta page tu peux pas le valoriser pour avoir ta une valeur da ngay dem ca page jàmbur.

di dem defal ji sama recherche bop di ñew di tek boole xam-xam ba may jël ci keneen ak sama bos pour ma gëna améliorer sama bop man nekkuma fi di tàcc Sonko rek lu mu dem rek ma tàcc ko non non lu mu wax damay dem réfléchir lan moo tax mu wax ko est-ce que am na lu ma ànd am na lu ma parce que on n'est pas obligé d'être toujours d'accord su ma ci àndulee ma ubbi sama page ne ça je ne suis pas d'accord. Mais ne pas être d'accord sur un point ne veut pas dire que tu n'acceptes pas la personne. Parce que mon nid, le day comme ñëpp léegi joomaay tamit nit la le comme maintenant c'est quoi notre problème Nous, on ne sait pas coordonner c'est quoi coordonner regardez la personne là où il est compétent on le met dedans Jomai, sa place n'est pas là où il est dafa am ci parti moo xamante ne fii lañu war a nekk dafa am ñoo xamante ne fële lañu war a nekk France fa mu nekk du place am parce que coordonner c'est pas être chef déedéet c'est regarder la personne mun nga coordonner ñoo xamante ne ñoo la ëpp compétence mooy da ngay xool ku ci nekk fa mu aay nga teg ko fa

avocat yi bokk biir Pastef yépp te bokk barreau de Paris pool d'avocat yoy non la waroon del volontaire te faylee sen biir ngeen taxaw pour président Ousmane Sonko ñooñu buñu waccé wàccee Macky Sall day tiit parce que danaan xalé yëpp Sénégal ñi ñëpp ay sénégalais lañu te ñi ñëpp barreau de Paris lañ nekk day tiit te y a pas mal d'avocats yu bokk biir barreau de Paris bokk ci biir Pastef France

dem leen ngeen xol conférence de presse bi micro yi fa nekkoon yëpp ay micro africain la ñu dégg ngeen man maa xool micro yi ay micro africain ñoo fa nekkoon parce que télévision ils ne ils vont pas perdre leur temps à part France 24 et France 24 c'est pour les noirs hein. TV5 moom c'est pour les noirs hein. doo gis BFM ñëw naan day toog di perdre temps moom doo gis la une di perdre temps pour Juan doo gis télévision yu mag yi tubaab yi di seetaan tous les jours di ñëw di perdre seen temps pour Juan parce que c'est un réseau dañoo réseauté xeex dafa am stratégie ni ñu koy defee te yéen seen stratégie baaxut te yéen seen stratégie seen militants yi bu ñu waxee rek yéen ñoom ngeen topp tàccu bàyyi leen di tàccu joomaay ne leen ko maam nee na xam nga ban jour lay commencé tàccul joomaay bés bu gañee ndengeleer man ku muñu munul gañe ndengeleer man duma ko tàccu man góor gu may tàccu tay fekk ne nga massifier massifier massifier massifier ba mu feeñ ña massifier feñ na seen liggéey ku massifier day feñ sa liguey ku faalé village am day feñ sa liguey parce que le travail paye toujours tant que vous ne savez pas faire ça vous ne savez pas faire de la politique ñom ñëpp dinañu ñëw bu président Ousmane Sonko roté ba pare ñom ñu ñëw tibb na après Idrissa Seck nénañu nañu ñëw na gis ci président Ousmane Sonko ça je pense même pas parce que je ne pense pas que président Ousmane Sonko dina perdre temps avec des cons comme Idrissa Seck mais mom day ñëw tibb Mimi Touré day ñëw tib ñom ñëpp ils viennent dañuy ñëw pour tib pourquoi parce que ñun mun nañu président Ousmane ko mun na root mais la muy root ña nekk ca wetam comme dañuy rooti di ñëw di teg pour mu gën a bëri ñeneen politiciens yi dañuy ñëw bu rootee ba mu ba ba teg ñoom ñu ñëw tibb dem naan ainsi de suite parce que Bart ñam na ko mu neex PDS ñam na ko mu neex Mimi Touré day ñëw ñam mu neex. Idrissa sek day ñam mu neex parce que wax nañ leen affaire ñu neume dañuy na bo boo ñëwee né Sonko baax na rek ñoo nga waxa Sonko and nga mom rek patriote yi taccu la nga ñew tibb ñew yóbbu il me reste pas beaucoup de mois donc arrêtez de faire le con don leen ay nit bo leen defulé yofu nit ngeen am ouverture d'esprit Macky Sall da leen di gagner di ñu maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ngeen dal ma ak nag wax bi dëgër mais ni rek le mën a parce que joomaay mënul génne ci télé bi di noyal man ma ñëw di noyal du baax.